kon nag mënuñu tàmb euh, tàmbale te duñu tudd Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, ci bésum ajjuma ji kon nag ji euh, leen sant di leen gërëm ci teewlu bi gis ngeen nag plateau bi ji bu ne rek xam naa ne yéen ñëppay bëgg ndaxte jigéen yi dañuy daal di taaru fësal li nga xamante ni moom moo di cosaanum Sénégal kon nag lii la lii mooy suba teel lii mooy Sen TV ndaxte yéen a ngi ci seen biir kër waxtu bu baax bi jot na ci naka noonu la ñu leen di dalalaat beneen yoon rek yéen internautes yi tàmbale leen partage bu ko defee rek mbir mi daal di gën tasaaroo ci àddina bi Aïcha ñu fas yéene nuyante euh, ma tàmbale nuyo bi nag euh, ci euh, ki nga xamante ni moom mooy borom tàggat yaram ndaxte moom moom lundi ak vendredi laa koy am te dama koy nam soxna Fall noo def ça va bien Asma maa ngi nii nam na namoon naa la torop di la fay di nuyu Louisa la plus belle papa san ziar naa la ziar naa invité bi yéen itam ñiy teewlu ziar naa leen bu baax a baax wala ngeen tee li nga xam ne mooy seen téléphone ci seen TV officiel ci Facebook di fa rek teewlu suba teel di leen ñaanal aljuma ak jàmm. macha allah rabbi boo ñu ko ñaanale dañuy jël ndaxte yow da saf jàmm macha allah waa suba teel yëpp sax nag euh, fa la waaye maa ngi ñëw ci ki nga xamante ni moom moo di borom esthétique di Louisa Diondi mi ngi def orange bu toog fa la macha allah alors Louisa Diondi maa ngi leen nuyu di la ziar noo def. maa ngi lay maa ngi <laughs> dalal gi neex na lool tuddee naa la orange bu doyul ma dolli. ii oh, boobu na doy na doy na. ah lay nuyu moom dama koy ngénte lu rëy te damaa bëgg xew. kon jeex na maa ngi lay nuyu di nuyu Paa San soxna Fall ak suñu invité di nuyu ñi nga xamante ne tamit euh, ñoo ñuy seetaan. macha allah ñoom it ñu di la fay di la teewlu lool lool lool li tax nag ñu yanjel plateau bi ne grand boobu ba ci Pape Assane Seck ndaanaan mi nga xamante ni sax tey dafa yëre olofu am na lu tax kon nag ci am na lu ñuy jublu Seck ndaanaan ziar naa la sama sama waa ji bismillahi rahmaani rahim waaw muslul ci man ah, de bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa yow non non yow doo ma def dara doo ma maa ngi lay ziar bu baax ah, suma yàlla Luisa Jandi euh, soxna Fall les grandes dames de Subatel. Mhm. super bien habillées. ajjuma ajjuma nit ñi dañ ko bëgg. dañ ko parce que dañuy ne plateau teel mhm. ajjuma dafa macha allah dafa macha allah ñëpp ko wax. Euh, di nuy sunu gan bu baax bii. Mhm. nga xamante ni moo di Cheikh Saadi bu jaaga. Euh, teewal la fi tey ñu di ko nuyu di ko dalal di la wax xas ma yàlla. yàlla na yàlla yokk. dolli leen sutura. amiin sàmm leen. ci kaw fan wa gudd wér donkaasi gi ak jaboot ga barkeel. barke salaatul faatiha ak alxuraan. ak mag ya baax ya fi nekk yépp barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam boo dend ak man nii sama droite rek sama xel dafay daal di dal ndax damay xam ne ni bés bi dana neex te suba teelu tey dina ala daw me fa tabaxkàlla macha allah euh, papa ñoo ngi lay dalal ci suñu biir euh, di la wax euh, dalal ak jàmm. wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. sabaa alxayri xam nga sa émission bi sabaa la tudd. Mhm. muy suba. Mhm. alxayri muy yiw. ndeysaan kon bu dee arab loolu la. Mhm. li ci ëpp solo mooy bu ngi duggee rek kanam yi ngeen di wane. day wane mais bu dem ci réew arab bi imam bi gën a rëy ci adduna bi. bu dugg ñu koy communiquer dañuy kaf moom. dëgg la ndeysaan parce que bi loo xam fàtte woon na ko. mais da koy revenir waat. kon yàlla yàlla defal ñu jàmm. amiin gërëm Pape Assane bu baax mi nga xam ne wax dëgg yàlla yiw mënu ko passé. dëgg la ndeysaan waaw bi ñu gisee yàggut. mais par téléphone rek mu xam ne ku baax la quoi. tout moom dafa yaatu dafa am xol bu rafet. <laughs> yéwén euh, ci ñi nga xamante ni ñoom la koy seqal yàlla na yàlla guddal sa fan. allahumma amiin nu bok ñëpp waay yaatal euh, wërsëg gi na xam naa ne ku nekk dénk ko ci xajal. Euh, kon nag ci noonu la ñuy dem rek jëli suñu ay éphéméride du jour Pape Assane Seck alors tey la le 24 juillet 2020 dañuy des des dellu tuuti ci ginnaaw rek le 24 juillet 2016 en lutte sénégalaise lac de guerre. 2 inflige une défaite à Yékini c'était quand même. waaw euh, waaw ci ci ci jamono wi ci contexte mais fin de carrière moom xam nga léeglé euh, daloon na fi Moustapha Gueye mhm. dal na fi ñeneen ak ñeneen daloon na fi màng de di ko di daaneel donc loolu du du du du loo xamante ni forcément euh, dinañ ci am problème mais lenn rek a am solo mooy de grands sportifs émérites muy mhm. Yékini Yékini nga xamante ni tey jii nii mun nañ jàpp nii ndaanaan. du ko romb ci ci ci làmb ji. koo xamante ni 15 ans ngay reñe Euh, te loolu kenn defagu ko wante ñi ko daan tamit ay ndaanaan lañu muy Balla Gaye moomu ngay tudd ak Lac de Guiers bi ngay wax ni euh, Balla daal daanu Balla bi nag man laa ci gën a jàpp laa ci gën a fàttaliku euh, mu nekk lu marqué esprit voilà lu marqué nit ñi loo xamante ni impressionnant na woon lool mais félicitations parce que ce sont de grands sportifs justement alors 24 juillet 1998 ce fut le décès du cinéaste sénégalais Djibril Diop Mambéty tam de culture ci jamono nekkoon euh, ku ñu ràññee Djibi Diop Mambéty euh, bokk ak sunu kilifa bii di Wasis Diop mhm. euh, ñuy ay am di jàmbi bokk Djibi Diop Mambéty mu ngi nii nekkoon ku ñu ñun ñun bi ñu gën a tuuti lañ ko doon gën a ràññee ci ci xam-xam surtout déjà savoir xam nga dañu amoon savoir donc am savoir ba pare am savoir faire ci seeni jamono donc dans le monde du cinéma il nous a beaucoup honoré malheureusement il fait partie de nos de nos mémoires yi nga xamante ni dañ leen xaw a euh, presque di di oublier te baax nañu delloo si leen un peu euh, c'est bien de le rappeler nii ci éphéméride bi justement c'est excellent Et, et aussi ça rejoint notre thématique d'hier justement légèrement bro, euh, brossée euh, où on parlait de de la perte de nos valeurs euh, socioculturelles mhm. euh, dans les dans les concepts des scénarios d'aujourd'hui. Mm -hmm. Je pense que fàttali ñi ah. ni dafay baax. ñi ñii dañu amoon mook ñoom Ousmane Sembène c'était presque la même race dañu amoon le sens de maanaam de la créativité utile c'est-à-dire maanaam du ñu proposer dara parce que dañoom am dañu koy proposer parce que am na njëriñ dañuy mhm. def film boo xamante ni parce que dafa yar dañuy def loo xamante ni masse bi dina ci am njëriñ donc du nekk forcément aussi commercial mhm. def pour am dara mais def parce que passion la lu ñuy dund la et il vivait des arts dañ vivait des arts mooy il vivait l'art plutôt dañ ko doon dund ak ak xol ak envie et cetera lépp nag du mat ci doomu aadama mais nañ jàpp rek ne ci seen vécu ñoom surtout moom Djibril Diop Mame ak ñu mel ni moom ñoom Ousmane Sembène ñu ci des seen combat yëpp seen vécu yëpp moo doon dem dans le sens de l'utilité publique Justement, je pense qu'il serait temps d'y retourner. Le 24 juillet 1957, Saint-Louis n'est plus le chef-lieu du territoire de la Mauritanie. ah ci jamono bi nga xamante ni Sénégal ak Mauritanie daanaka benn la woon. ci jamono wante am na ku ñëw xaajale ñu. def rive rive rive gauche rive droite. moom moom kooku. nasaraan si. rive gauche rive droite xaajale rek. xaajale rek xaaj te daf koy def astucieusement léeg-léeg daf koy def ñëpp yëg léeg-léeg mu def ko in petto Euh, mais voilà mu Sénégal ak Mauritanie daanaka benn dëkk la mais si jamono dañuy fàttaliku ci ci rappel historique par rapport ak Senghor bi mu fi nekkee. ak mm-hmm. euh, sunu kilifa boobu di Assane II euh, yàlla na yàlla yërëm leen. Mm-hmm. ci jamono Assane II amoon na benn benn benn esprit. ci par exemple nan la ñuy def ba boole Sénégal ak ak Mauritanie mu nekk mu waroon nekk daanaka benn réew. donc idée boobu la ci amoon moom Assane 2 mais après voilà euh, la donne a été tout autre xam nga li ñu naan waaja rek ka ne ca diggante ba moom toujours di xaajale parce que booloo bi arrangé wu ko. mais est que tamit bu xaajalee tamit ñi nga xamante ni dañ koo nangu seen seen wàll faaw ñu tudd ko aussi. waaw parce que day wut ñoo xamante ni ñoo koy jàppale si loolu. Mhm. maanaam bu amee ñaar ñoo xamante ni kenn ki dafa am intention bu baax moom day utiliser keneen ki nga xamante ni peut-être dafa influençable. Mhm. et il le faisait astucieusement Mamadou Dia wax nañu ko mu ne Focar moo réussir cette cette transition là bi nga xamante ni moment di lànk. moom am nu mu taxawee Houphouët-Boigny ak Senghor dañoo nangu presque ànd ak nasaraan bi parce que quelqu'un travaille dans ce sens mooy maanaam ñi gën a faible dans leur comportement ak ñi nga xamante ni aussi nañ jàpp ne ci wàllu état africain dañuy ànd ak nasaraan feneen fu dul fuy officiel dégg nga wax bi hmm. maanaam ñi ànd ak nasaraan fi officiel fi nga xamante ne ñu ko gis mënuñu ko dégg waaye foofu ñu àndee ñoom hmm. mooy tënk liy dox nii baax na daal muy leer nañ ni ba tax ne sénégalais yëpp dinañ gën a yeew africain yëpp dinañ gën a yeew ngir mën a suqali seen bopp ak rëccal seen bopp ci li nga xamante ni moom moo di pexeem nasaraan si euh, bu ko defee rek dootuñu mën a nax euh, ci naka noonu li moo nekkoon suñuy éphéméride euh, du jour dañuy daal di rekk faire place à l'actualité ñu dalal Papa Sane Seck Alors, comme tous les vendredis, Papa Sansek, l'actualité se transforme en la chronique du vendredi, tout comme nous, on, voilà, on, on au du vendredi. <laughs> quelles sont les actualités et qu'est-ce qui se passe dans le pays Qu'est-ce qui est déplorable C'est question de venir. <laughs> tu as l'art message, mhm. mais nañ koy joxe ci forme bi dafa am solo. Euh, Asma euh, sunu président Macky Sall mu ngi Mali. Mhm. dafa dem Mali. pour waxtaan ak euh, sunu bokk malien yooyu ñu leen di nuyu ñu fa nekk di ñu seetaan pour waxtaan ak ñoom dans le cadre des chefs d'État de la CEDEAO moom ak ñoom Jonathan Goodluck moom ak ñoom Jean-Claude Kassi mm, moom ak ñoom Issoufou bu Niger. chef d'état yi daal africain yi ñenn ñi Mohamed Buhari ñi si des alors lan loolu la wuti Mali dañu dem Mali pour waxtaan ci situation Mali bi nga xamante ni Imam Dicko bi ko jiite moom nga xamante ni moo jiite daanaka presque une forme de révolution boo xamante ni de grands intellectuels ay ay ay boroomi xam-xam yu mag yu newoon ci état mali dans le temps mm. ba fi ñu toll ni ñoo àndandoo ne situation Mali la même situation que vit le Sénégal ne situation Mali actuellement ci dépravation ci yàq seeni ressources ci jaxase dëkk bi ci manque de sécurité ci Sahel bi nga xamante ni jaxase nañ ko ba nga xamante ni xamatuñu kan mooy kan moom ci environnement boobu ñoom maliens yi ñu ne d'accord ñu na IBK dem Ibrahima Boubacar Keïta Ibrahima Boubacar Keïta bi nga xamante ni si jamono bii fële sa Mali mën nañ jàpp ni du moom mais en tout cas moom régime am faat nañu 23 maliens ci diggante le 10 le 11 le 12 ci contexte boobu environnement boobu maliens yi jóg ne léegi comme def ñuy rey moom nañu rey ñun ñëpp ba ñu jeex waaye moom na dem. réew bu tollee foofu nag yeneen kilifa yi bu ñu jógee ne dañuy dem àttu sa peut se comprendre wante lan moo leen di yóbbu ak ban motivation ci ban sens lañ fay demee loolu moom ma tax xool ñun ñëpp dañu war a toog ne ah gars yi dem nañ pour waxtaan ak euh, maliens yi yow yaakaar nga ni chef d'état africain yi mën nañ dem Mali. toog ak suñu bokk yi ne leen kat yéen foog ngeen nangu IBK dañ ko dañ ko fal euh, de façon démocratique euh, bàyyi leen mu jeexal affaire am ci norme bi et ñu continuer vu situation te dëkk bu nekk ak ay réalité ak nu mu koy dundee ñoom fa ñu toll nañ koy dundee ñu ñun amaana Sénégal mun nañ ko mëñ parce que ñun defe naa daj nañ fi dëkk boo xamante ni amaana bu doon ñeneen duñ ko nangu ñun suñu culture xëy na moo moo moo ñoo ànd ak ce sens de pacifisme entre guillemets daal na rafet na rafet na rafet ba xëy na këndëng ñun ñoo mun lool ñun du ñu xeex. ñun dañuy dañuy dem nag ba doo au nag ñu door a xool li ñuy def wante am na ñoo xamante ni mënuñu loolu. am na dëkk boo xamante ni mburu lañ fa wàññi xamatuma ban dëkk la mburu lañ fa yokk cinq euh, su su su Somalie xaw ma Soudan. Soudan Soudan. Mm-hmm. Mauritanie am na fa ak Soudan cinq francs xaw ma dix francs la ñu yokk ci pain bi dëkk ba génn bokk na si li daaneel président Soudan bi. mais benn affaire moo am mooy que li nga xamante ni moom na kilifa yi. dem dañoo sësoon dañoo sësoon. Mhm. léeg-léeg sax du ñu sës dañuy dañu bokk ak ñun tempérament xam nga ñun yàlla daf ñoo may wax bu bare bi xam nga léeg ñu ne la waa Sénégal dañuy wax rek. Mhm. gis nga bu dul woon wax bi yatta yattay jóg. yattay jóg wax bi moo tax yat du jóg. maanaam mhm. wax ju bare ji moo ñuy occupé ba dañu naan waaw mais sauf ko nag wax bu bare bu ëppee léeg-léeg dafay dafay salfaañe dëkk jëf dafay gën léeg mais jëf aussi ak xel aujourd'hui la chronique du vendredi. oui je l'ai titrée la révolte psychique. la révolte psychique. Justement. la révolte dans la tête. Mm -hmm. pas xeex mais dans la tête. Mm -hmm. pour lan mooy dañu war a comprendre quelles sont nos conditions de vie actuellement mooy que Mali googu di prétexte lan la fa gaañ di defi du lenn lu dul sécuriser les intérêts des uns au détriment des autres sécuriser les intérêts de qui. régime boo xamante ni dem na ba population bi ne bëggatuñu yow da nga fay toog pour ñun nit ñi ne bëggatuñu naam ci élection la jaar d'accord mais ci yan élection mhm. après démb maa ngi déglu sama benn xarit mu naan ma euh, bu loo bu ñu ko forcer ni démission on va retourner vers le coup d'état plus ou moins non je ne pense pas dafa di rek dëkk africain yëpp surtout l'Afrique francophone lu ñu yàgg dundu il faut se poser la question coup d'état yooyu nan la doon amee ak ku ko doon def ak ña doon def mhm. coup d'état yooyu da doon la France ñëw waaw dépare foofu maanaam ñu ñu programmer ko parce que chef d'état bi arrangé wuñu ñu coup d'état ko programmer keneen ak leneen ak neneen koo xamante ni dafay ànd ak ñoom ci cadre boobu par exemple. te Papa foofu noonu sax ñoom dañoo yàgg sax war ñi nga xamante ni ñoom la ñuy defaloon alliance ngir toog ci réew mi bu ñu demee ba gis ni waa askan bi ñoom bëggatuñu la dañuy coup d'état keneen euh, tatagalatal keneen ñu teg ko sa kaw alors que yow la ñu lëkkaloo woon ko ah, warante boobu ci loolu noonu nga wax. Mhm. ma doon ca dem. nga mhm. jiitu ma ci ma ànd seeg yow. dama di sa sa élève nag. jërëjëf <laughs> ma ànd seeg yow. mooy li dal Alassane Dramane Ouattara. justement ci fi ñuy wax nii moom bi nga xamante ni bi ñu demee Mali démb ba ñu ne cëpp. bokk na ci nga xamante ni moo njëkk a jël kàddu daal di dem dans le sens de ah il faut ñu apaiser et cetera et cetera wante moom dafa nekk ci cas de figure boobu moom Dramane Ouattara bi nga xamante ni dafa war a déposer troisième mandat te mu ne woon du ko def. dem ba ci yàgg digg bi mu ne dinaa ko def bu fekkee ñu mel ni man tollook man at dañu nar a nekk candidat xam nga loolu wax waxeet la ba jël candidat mu di Amadou Gon Coulibaly bi nga xamante ni yàlla na ko yàlla yërëm jóge na fi bu yàggul ñu denc ko semaine bi kooku nekk problème ci moom parce que ka mu jëloon pour mu remplacer ko nekkatu fi ñi naan Amadou Bakayoko son ministre de la défense ou pas mais tey la question mooy France googu nga xamante ni tey ñu wax ko nag moom mooy moom yee yaay mooy teg les chefs d'État ak ni mu leen di tegee mm. mais France boobu tey dafa am problème parce que Washington. Mm. àndul ci troisième mandat de Alassane loolu problème la donc tey jii nii ku fi naan troisième mandat ñi ñi ñi ñi ñi koy neenee fii di ko ruumandaat fii Sénégal na leen leer ni Amérique du si ànd ku xamul Donald Donald Trump rek dégg nga ko dégg ngeen si wax bi. ku xamul Donald Trump. dégg nga ko ci ci ci moom bu jëlee décision def nangam mooy ku fi troisième mandat rek Trump mu ngi ci wet gi ak Poutine fële. ñu wax en passant ne suñu kilifa yi nga xamante ni ñoom ñoo dem Mali li leen tax a jóg mooy saafaral officiellement mais comme ñoom ñëpp daanaka dañoo bokk problème parce que ñoom ñëpp ku ci nekk te si ça la réalité qu'on ne nous dira jamais qu'on nous refusera d'admettre mooy que tey président bu fi toog boo newul ci intérêt ñi nga xamante ni ñooy nasaraan yooyu di français boobu yow na la leen di sa nguur dina am jafe-jafe waaw léegi na ñi nga xamante ni ñooy chef d'état africain yi am xal mais sauf que nag sauf que nag li ñu naan li la fal li la fal. Hmm. su fekkee parce que la question mooy kan moo la fal. ñun nit ñi ñoo la fal wala dafa am ku teg système bu la fal bu fekkee système bu la fal moo la fi teg sa nguur du dëgër parce que mooy indi nga nekk entre le marteau et l'enclume mooy indi nga nekk président. jàkka jàmmaarloog sa waa dëkk parce que politique bi ngay mën a arrangé wu leen wala nga jàmmaarloog système bi la fi teg nga xamante ne moom dafa am ay intérêt yu muy sauvegarder. mooy port bi il faut nga jox ma ko mooy euh, sa zircon il faut nga jox ma ko mooy sa pétrole il faut nga jox ma ko et cetera et léegi soit da ngay ànd ak peuple bi ñoom ñu ne dañ lay xeex wala ànd ak peuple bi peuple bi song la muy dilem loolu mooy li xew Mali. mooy li xew Côte d'Ivoire mooy li xew Sénégal mooy li xew ci pays africain francophone dama ko doon dama fa doon ñëw président yi dajaloo yëpp dem fële ca Mali euh, Pape Assane Seck ñoom lu lu toll ni li xew Mali mi ngi seen réew déggoo li ma la wax. pourquoi ñu dem fa léegi. waaw parce que lay tàkk fee bu fa jàllee ci yow la jëm. Hmm. loolooy problème bi léegi nag tey. kon seen allié di wóorul les Maliens donnent l'exemple à tous ces pays là tey jii nii Côte d'Ivoire ñu ngi ragal buy Alassane Ouattara di wax troisième mandat. musiba am te te loolu la nekk di lijjanti France gi nga xamante nag ñoom ndeysaan ñoom selon les intérêts parce que en trois mois quatre mois fii la élection ivoirienne yi ils se disent amuñu peut-être un pion probable bu mën a et cetera li ñuy wax ni nag. Hmm. officiels yi nga xamante ni ñoo nekk Sénégal di ñu setaan di ay kilifa ñu leen di ziar bu baax ci àjjuma ji. Hmm. daf ciy am ñoo xamante ni dañuy jàpp ne que on délire léeg-léeg sax ñu tooñee ñu ko ba tu di arrête de divaguer divaguer wuñu délire wuñu. naaxuñu amuñu problème li fi ne mooy àdduna dafay dox si jamono les Occidents étaient parvenus à faire de sorte que URSS Union soviétique tas. Mhm. ba mu tasee lan lañu def du Mikhail Gorbatchev moo fa newoon diggante Gorbatchev ak la sa topp ñu fexe ba. ba ba Russie Union soviétique amatul doole xam nga tax bëggut bëggut ñun mu am doole parce que simplement ñooñu bu ñu continuer nekk am doole dañuy nekk contre pouvoir contre l'Occident l'Europe et les Amériques hmm. waa léegi am ku tudd Vladimir Poutine lool foofu nag la quintessence leadership nekk mooy réew masse du ko changé les gens disent oui population yi ñun ñoo war a ñun ñoo war a ñun ñoo war a ñun ñun la te ku si nekk sa bopp ngay xalaat hmm. mais dafa am kenn kuy ñëw ne gaañi kaay te kenn kooku yàllaa kaa wàcce justement looloo fi nekk donc si gàttal ci gàttal le souci de leadership bi Afrique de l'Ouest am lu tax Rwanda demul demul bo Paul bokkul ci kii bi li ma ci am doon fàttali dem <laughs> lu tax Paul Kagame bokkul si ñi war a dem Mali pour régler problème bi lu tax sud africains yi bokkuñ ci lu tax Afrique australe bokkuñ ci hmm. lu tax ñenn ñi bokkuñ ci Afrique de l'Ouest ñoo ci bokk Mohamed Buhari dina ci was lu àq nana akko dina si waslu ak ku foo mais tey si contexte bi ñu toll on se rend que ñi gën a am intérêt mooy l'Afrique francophone te kooku ñooñu dafa am leen tënk leen tënk nag leadership boobu nga xamante ni moom la yàlla yee ci réew hmm. moo koy lijjanti mooy koo xamante ni dafaa ñëw daal di ànd ak borom bi hmm. li ñu naan fi nga wéeru xam nga Poutine lu mu wax hmm. ci référendum bu mujj bi yàlla Poutine dafa ne jë jë yàlla teg ci ne réewam du am boroom ñaari tur. ñaar yooyu la wax. mu am solo Vladimir Poutine. Poutine boobu nga xamante ni tey contre pouvoir la si àdduna bi. en terme d' équilibre. Vladimir Poutine boobu nga xamante ni tey guerre Russie bi lu ko waral du lenn lu dul gis nga wuy ma. Hmm. gaz gaz bi Sénégal am ak Mauritanie. la waral Sénégal ak Mauritanie du nangu mu doon benn. Hmm. dañu koy xaaj. ne ñii ay naar lañu ñii duñu ay naar. Hmm. xaaj boobu nga xamante ni jur rive gauche rive droite. ñu ñu def ba nga xamante ni Rosso Mauritanie ak Rosso Sénégal nekk ñaar alors que benn Rosso la. benn loolu tey mooy gaz bii ngay dégg tey gaz bii nga xamante ni diggante Syrie ba Europe kii di Vladimir Poutine da ci am loxo bu nga xamante ni dafay équilibré. parce que Russie moom itam gazam dafay servir Europe européens yi nag ñoom ci seen entendement loolu dépendance la bu nga xamante ni day tax toujours nekk sentir cette épée de Damoclès fi ne nii Europe bu seddee seddu leen lenn. Mhm. xuloo Occident yi ak Russie du am mukk jamono seddaay. Mhm. parce que jamono seddaay Poutine bu dee nii caabi ji gaz bi day wàññeeku bu wàññeekoo seddaay bi rey ñu bare. Mm. bu ko defee seddaay dañuy neexal Poutine. lii fi ne waaw ginnaaw nag loolu am na <laughs> lan am ñu empêché ñun nañu ut wakkilu nañu wakkilu suñu borom mhm. ba pare ne Poutine am fi wàll ak keneen ak ñeneen ak ñeneen ubbeeku boobu président Ablaye Wade doon jéem si jamono loolu mooy intérêt Sénégal mooy intérêt Afrique de l'Ouest mooy intérêt les quatorze pays francophones yi nga xamante ni seen àdduna seen coono yëpp muy nekk ci banque centrale bi leen tënk. justement euh, Barhama Tavares maa ngi lay nuyu kii di Marème euh, Sy aussi maa ngi koy nuyu mi ngi lay jaajëfal bu baax a baax papa sa nee na la macha allah euh, damay jël macha allah boobu daal di ko bamtuwaat. jërëjëf rek euh, beneen yoon euh, parce que justement euh, je pense qu'il est temps de se de s'auto réveiller. la révolte psychique. il faut il faut se réveiller parce que tubaab bi je pense que euh, réew sax nag Pape Assane du tënk boppam euh, ci benn buntu kese luy France <laughs> bu France lu mu ñu mën a jox bu fekkee ni suñu ay accord euh, baaxul ci ñun mais nañ dem xool Poutine. Russie dugg si parce que aujourd'hui bu ñu xoolee ci Union européenne que tu mel ni euh, Angleterre a euh, ay ay yi ni mhm. ñoom ñoo ngi génn dem et pourtant tey ci mbas mi Angleterre mënoon na leen dimbali bu baax a baax mhm. waaye xeex nañ Brexit bi ba génn parce que tout simplement eux-mêmes entre eux ils savent que la France peut être un poids alors pourquoi accepter que ce poids là puisse peser sur notre dos à nous alors que amuñu kàttan ñun tey jii nii boo wàccee Europe mhm. ñu fa ëpp ak Angleterre. ñoo fa ëpp gëdd. ak xam nga ñan xam nga ñan. les pays scandinaves ñoom Danemark ñoom Norvège ñoom Suède nga xamante ni ñoom frégué wuñu dara. lijjantewuñu sax li xew foofu parce que ils sont tranquilles mais ñun nag révolte psychique bii nga xamante ni moom la ñuy woote ni jot na jot na jot na Luisa. soxna Fall Cheikh bu Diaga sunu ustaas bi sunu kilifa bi nga xamante ne moo ñu assisté tey ci nekk sunu gan ak yow xasmaak MD euh, Mabba mhm. Saliou ak ñii setaan ñu yow quand une entreprise étrangère mi-étrangère mi national entre guillemets mais bon on est dominé qui s'appelle Sonatel Orange <laughs> gagnerait ah, oui c'est joli et c'est une belle couleur <laughs> tu es tu es pro orange. ah. 3 milliards millions est-ce que xam ngeen 1 milliard lan la. 1 milliard de. 3 milliards 200 millions. ñu ne 3 milliards 200 millions la benn entreprise di gagné ci biir Sénégal Sénégal boobu nga xamante ni dafa bokk ci les pays les plus pauvres dans le monde Sénégal boobu nga xamante ni dafa bëri taux de pauvreté. Sénégal boobu nga xamante ni dafa bëri waaw Sénégal boobu nga xam dafa bëri ñu yalwaan waaw léegi. est-ce que am nañ nguur bu nga xamante ni am na fulla ak fayda pour nangu sa société de téléphonie moom ko ban européen moom la fitam may ba ci France bi muy taxaw Russie di fa am entreprise de télécommunication bay gàddu ay bénéfices yu ni toll ban entreprise européenne moo am fitou wàcc Allemagne di fa am lu ni mel ak feneen ak feneen ak feneen tey ñu ngi kaa dund avec la complicité de Sénégalais comme nous <laughs> da waxtaan ak nit mu ne la booy. essayer d'acheter des actions à Sonatel Orange xaalis la de oui xaalis la oui xaalis bu bëri la parce que ña fay am dividende à la fin de ne ñooñu dañuy sant yàlla jamono bi mais est-ce que est-ce que nguuru Sénégal warul am beneen gis-gis bu dépasser loolu dem dans le sens le jour où on se libérera de ce guêpier la lan mooy xew dañuy changer donne bi changer négociation bi mais négociation capacitation de négociation wala capacité de négociation leader bu fort. Justement, on parle de la chronique du vendredi. Tout le monde a son mot à dire car c'est les impressions euh, de la société sénégalaise. Sokhna euh, que penses-tu de la révolte psychique dont parle Papa Sane? dina am njëriñ dina am njëriñ vu que ni on se répète parfois da ngay dem ba dootoo xam li parce que on se répète les mots avec MAU ak X chaque jour moom la ñuy gis mooy am au Sénégal amul benn évolution boo xam ne am na ci yokkute goo xam ne dina amal njëriñ xëy na askanu Sénégal ñu mën ci yëg mais tey bu amee suba dañuy xaar lan la ñuy xaar day gën a yokk wala leneen xew ñu fàtte bi xewoon démb ñu commencé waat beneen bu bees noonu la ñuy dundee depuis des années moo tax euh, <laughs> moi je vois pas bu ñu ko deful comme li Papa san wax tamit noonee la ñuy fa fas yéene dundee keneen ku ñëw tamit bu amul ak coppite jaar ci beneen yoon bi tam noonu lañuy ñuy dundewaat kon coono bi askan bi ñun ñi mu doon ñoo koy continuer di yéeg rek dañuy souffrir ba ba faw souffrance boobu dafa war a dakk alors Jacques Yacoub Negri nee na juste dommage avec ses affirmations et pire personne a une réflexion sur ses dires le grand pape lu mu wax rek ils disent c'est exactement cela alors c'est le ressenti de tous les Sénégalais lambda vivant et résident au Sénégal euh, tout le monde ñi loxoy ñëpp jotul seen ginnaaw euh, te euh, on parle aujourd'hui du Sénégalais de souche vraiment euh, bu nga xamante ni euh, amul doole noonu te kooku moom ak ñun ñooy bokk li nga xamante ni moom moo di ñaxtu euh, bokkut ak ki nga xamante ni am na junni bu mu mun a demee plage bokkut ki nga xamante ni am na junni bu ko amee peut-être dépense su ñaari fanam lañu. Mhm. ñoo ñooñu fi tax a toog ndaxte yaakaar naa ni réew mi bu doxee dafa war a yegg ba ci ñooñu on a on en a un peu assez de de de cette division de kii am. qui ñàkk on veut que Déjà. tous les Sénégalais puissent euh, tout avoir au même niveau donc justement on est parfaitement d'accord avec Papa Assane ndeysaan ndeysaan sama yaram baa ngi daw parce que dañu jël Sénégalais yi am ñu ne si kaw di dund billaay ñi si suuf sonn te ñi ci suuf ñoo tax ñi si kaw ne si kaw <laughs> ñi si kaw dugg tëj bunt bi wan leen gannaaw comment comprendre la banque européenne d'investissement ñu ne yéey yaay pour la relance économique au Sénégal dañuy abal 49 milliards au même moment Orange di am 3 milliards 200 millions ci biir Sénégal chaque jour da wax bi te 49 milliards yi dañ koy fayaat ak ay taux d'intérêt da wax bi c'est-à-dire maanaam engrenage bu nga xamante ni du jeex xasma bu ñu ko toppee duñu fi jóge jógee oustaz Cheikh bu Diaga mu ngi nii toog est-ce que diine mhm. am na wàll ci révolte révol révolution wala révolte psychique bi nga xamante ni ñu ngi kaa wax ni euh, sallallahu alayhi wa sallam yi suñu kilifa am d'état la politicien la woon chef religieux la daf ne laa tatamannaw liqaa aduwin fa ida laqitumuhu fasbutu al amiru jairun xayru min fitna wa kullu xayrun fihi wa fihi sarri yaraha am d'état la woon def discours bu pertinent islam ñaar la doon xeex suufu boppam ak diineem man dama retraité suma dama nga Espagne ñu tëj leen ndax feebar bi. boo boo waxee loolu ba pare. Mhm. Luisa jànd mi danga koy wax lan moo boole Seydina Isa ruuxlaahi. ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dëgg la ci loolu nga xamante ni yaa ngi koy wax ci homme d'état. voilà euh, bi mu ne ma papa ñu ngi génnatuñu mbuur la ñuy lekk. man yow laay xalaat mën na koo xalaatal sa bopp maa ngi retraite mais yàlla bàyyiwu ma et puis attention man li ma mën a dem ba retraite fay ko passion. samay doom ñu ko moo tax xale yi jeunesse sénégalais yëpp laa wax bàyyi leen téléphone yi te bàyyi journaux yi bay fecc mi xam seen réew lu fi dox dafa am na xam dootu continuer man présidence laa nekkoon ñii tey wóor nekk ci régime bi am na ñoo xam ne buntu pale lañ mooy wonam oustaz kaay ma dugal tey jii ñoo yor ay huit wit du seen niveau du seen waytu na yàlla bal du seen compétence alalu réew la laa akulu dawlul amwaalikum bil min ad-diyaa lu yonent Yàlla Muhammad wax mu éviter leen di lekk alalu état. buur hmm. la wax xam nga teg sekk ne euh, yow ma arafa as wala makka makka ak umra li yonent bi doon nomee yëpp bu ñëwee makkatal mu karam te lañ xool erreur yi ñi war a nomee ñi war a licencier ñi war a affecté. parce que yooyu yëpp dañuy xool population bi la ñuy dund ak li ñuy communiquer loolu la prophète bi xool. texte bi sax dafa gàtt mu noonu ko noonu ko liiral bi naa loolu dafa dem dem bu jënd léegi nag adduna bi nag bu du warut a yàqu xam yàlla dafa ne ne man dama leen bàyyi yàlla mën na la jox lekk ceeb dugub lépp neel benn. yàlla jox la xel parce que yuur mooy tax nga jàpp tibb ba seex yàlla du sàq mit yàlla du wanaasu mm. yàlla du sàqi mukk du wanaasu te kullu nafsin bi ma kasabat rahiinun gis nga détournement yi nga dig si yëpp barki laa ilaha illa allah ku tëdd ci suuf bii lépp da nga ko fi ba te hmm. dara jër ko nag du ñu dang ay Occident tubaab Occident ak ku man a doon ñu lay manipuler lawoon ca maam ak lawoon sunu bàyyi ak lu ñun ak li jeunesse bi duñu benn kon képp ku nekk homme d'état nga def attention bis bu ne nga digg ñu ne diw suul nañ ko te amoon na ay alal diw suul nañ ko nomination amoon na ko diw kilifa dee na yàlla dafa faale loolu et yàlla du nit du malaak du jinne du rawaxaan du ab du asiatique du autre yàlla du africain yàlla yàlla la mais oustaz est nit ñi ñi ngi bàyyi xel ci yàlla comme ni nga koy expliquer nii <laughs> parce que parfois tout à l'heure ki évoqué na ki nga xam ne Côte d'Ivoire moom lañ tànnoon pour mu fas euh, Amadou Koulibaly faatu mais ñoom <laughs> parfois moi je me dis que ni que ñi jiite parfois du ñëpp peut-être dinañ xalaat ni dee dina am te ëllëg yàlla dina leen laaj ñu nu ñu nu téyoo woon seen eh, njaboot xam lu ko waral eh, yàlla dafa ne maalikul mulki tuuti mulk bi man tashaa man buur man may yàlla may nomination bi may buuru bëri. Hmm. mais dafa ne tuuti nomination la. te yàlla na bu ma lay jox nee na du ma xool ndey sa baay sa xam-xam sa compétence man maa ma neex ma fal la. mu hmm. di la xool nag loo def da xool de not teg mais bu dee ba xam nag lañ la joxoon dafa tokkat wàcc jot na nga bañ mu ne wattan si ma buddi ko xam nga lan mooy buddi yàlla. Hmm. nank nank lay tege problème. te ku ne xam ne lawoon 2012 ba maintenant boo defee am réflexe. xam ne am na lu wàññi ko ci man noonu la nag loolu nag la la xoole xoole sénégalais bañee wala yeneen réew xam nga autocritique si si di saytu sa bopp xam lu ko waral mhm. yow da nga doon diw Pape Assane day jalgati mhm. Zeyna yéen ñëpp ngeen woote day jalgati ba tax ñu wooteel la mhm. ne yow li ngay pasan bi wax nekk dëggul ci yow yàlla ne na ma feeñal la fala adduna bi toll te ku moytul motard ak garde fa ngay sànk doo ko xam motard boo génn ñëpp bi maanaam moo tax képp ku falu rek boo nekkee innocent boo bëggee xel mi day ubbi ko ku bëgg campagne day ubbi ko nga am réflexe toog a gars yi di naan café nu ne. loolu mooy boo amee. léegi nag Iblis moo ñëw nekk sa conseil spécial. da ngay beru. waaw rayal nit dóoral nit tëjal sa ndey gën ndey nit ñi tëjal. bis muy commencé dañ sa loxo. bis boo demee ba amatoo garde corps mais ku la waxoon la République Abdoulaye doom dañ koy kaso lu ko gëm. parce que amoon na ximaaya. Mm-hmm. te loolu comme jàngulut. ku yaayee jàmm jàngul ku yont yàlla Muhammad jàngul sallallahu alayhi wa sallam toog yont bi toog na ñëpp toog saabay fes dell jibril wàcc na yàlla yàlla na ko demal nga ne ko dund bi neex na ñu ngi koy tàggate waaye day dee de asma si tabahu mayit bu ca yem mun a ko toogal ñoo ñu ko wër ñëpp dañ ma dañ ma dañu mas tàggoog ñoom ndax sa soxna bu faatoo ñàkk nga ko waaye bu góor faatu ñàkk na soxnaam. kuy liggéey bañ dàq ñàkk nga sax emploi. loo jaay jaay nit bis boo génnee ci société bi tey bokkatuloo. mais pour nga koy xarab. bi maanaam loolu nit li nga wax ne xam nga soxna sa am solo. doomu aadama bu demee ba dem afala tatafakkaruna du du toog du xalaat nit day xalaat. léeg-léeg nga def émission bu génnee waa man ban ban heure la def xam na lu koy wan rediffusion. mooy xam ne en nekk te heure bi laa def kon bi maanaam mooy tan homme d'état c'est pas homme d'état man en tant sénégalais am jabar ak doom yàlla dafa ma dénk ñooñu. Mm-hmm. ni mu ko dénk noonu mu yàlla ne dama lay laaj. Mm-hmm. est-ce que xam ne yàlla ëllëg. Mm-hmm. am benn benn eh, journaliste yàgg nañu am xam nga dëggoon ñu naan Yazid doomu mu ayo Yazid. mi boobu Ousseynou ci Karbala. dafa rey loo Assane rey Ousseynou. mu amoon benn journaliste saa yu masaan def kuréel rek rek mu jàpp ko tëj. di ko tëj di ko tëj di ko tëj ba bis bu mu dee dañ koo génne prison rek ñaari fan yësit de mu dem ci armée la ngeen baal màq ñu suur ba ñëpp dem journaliste bi ne ngeen baal màq dafa am lu nga xam ne bii témoignage la te bugguma àgg ci kër ga te buggu te duma àgg ci kër ga ñëw taxu ci boppam ne ko yaay yaa Yazida maza Yazid xanaa kii du yow saa yu mal ma sa wax dëgg nga toroxal ma tëj ma kaso ndax bëggu population xam dëgg gëmoon na tey di nga dee hmm. gëmoon tey dañ la nga suul waaw yësil ma de la laaj malakal mawti bu ñëwee di laaj lan nga ko mën a tontu ndax da ko yëg. Mm. li nga def yëpp ñaaw na man loo ma mosoon def ci en tant que journaliste baal naa la ko. Mm. mais lenn nga def loo xam du ma la ko baal na métti wax ak Seydina Mohamed. moom Ousseynou ak ma nga rey ngir mm. ña nga reyoon ngir pouvoir. bu te ñooñu ñu nag ñooy jeunesse musulman àjjana ëllëg. loolu la bokk naa ci loo metti ma lay ñaan nag fexeel ba rek nga téye sa fit bu malakal ñëw nga tontu mu ne ko lépp bàyyi nga ko fi bàyyi nga jogo jongo muy rafet pale bu rafet bàyyi nga ko waaye ko mën na ko ittaqul faraasa biir bu nu yoo ànd fa innahu xasabul xarab moytu leen tabax alal bu alal bu baaxut jël leen alal bu baax ko tax muy graciel Seydina Mohamed ne ne day màbb dal sa kaw ñun ndax bâtiment bi day màbb mu ne màbbul de ah. yàgg yàlla da nga koy jaay jënd ko ordonnance te du tax nga wér ba dem jaxanama frère lu ko fi jar kat kat yi lu ko fi jar jong mi lu ko fi jar te bàmmeel ak yàgg te yàlla nag nee na du nit du jinne du malaaka du yonent mm. a jaru ko fi Seydina Muhammad bu demee rasulullaay amul kër gum dëkk mm. prophète amul kër gu dëkk laaj mu dëkk mm. kër gu mag kër ab kër gu mag abu ta kër abu boo ñëwee ci kaaba gi ci ginnaaw foofu mu naan bi suquti abi taalib mu noon petit palais rasulullaay fa la juddoo aba taalib fa la juddoo abbas fa la kon kër gu mag loon ba ni ba ni yi nii amul kër gu moom du Makka du Medina da di borom àjjana. lu ko fi jar ñu ngi ko denc fan. ñëpp ma nga Medina. Hmm. ca néegu ah Aïcha. lal ba lañ puus lal bi day puus gas suul ko. neel benn benn. Makka yoon fu mu jógee jógee du Makka. Mhm. fu mu faatoo. Medina mhm. maamam bi nga xam ne mooy Saybata Amdi mi jur. ñoom ñëpp juróomi juróomi juróomi euh, doomu bàyyi. Mhm. ba ci Abdallah Muhammad Rasulullaah. Medina la juddoo. ñëw Makka. mu talib moo ko jëli. doo dégg ñoon Abdul Mutalib sirnoo la. rakku Xaasim moo dem jël jël xel booba. gis nga émission bu yaatoon moo leeral la kay mooy yoon ci Muhammad et puis lan lan moo doon rapport am ak Seydina Isa waaw Seydina Isa day day mag ci yonent bi hmm. day xarit ci yonent bi ñu bokkoon même compagnon bi ma ana moo tax ñu ne yàlla nee na moytu leen yéen nit ñi ngeen di con comparé yonent bii jël ke ko yonent bale hmm. ku ko def bokkatu ci diine ji hmm. Isa mooy mag yonent bi sallallahu alayhi isaa mu jiitu Seydina Muhammad Isa nekk koo xam ne bii yàllaa ko baaxal waaye nekk nekk doon nekk te yaay moo baax hmm. Mariama Mariama moo baax ndax Mariama li tax mu baax mooy dafa dafa nangul borom dafa nangul baayam <laughs> comme diggante Ismaïla ak ak Ibrahima hmm. Mariama jigéen lu koo xam ne setoon na sell na ne benn hmm. benn xamulul jàkka ja toggal baayam fóotal baayam jox ndox baayam ba pare ci wetu baayam ba pare téy noppam nag moo tax ñu asawmu di nga ñoon samu Ramadan. Hmm. samu mii ci Mariama lañ ko jële hmm. ndax noppi ki. xanaa papa loolu moo tax euh, muy feeñ ci seen jukko. mooy feeñ ci waaw et puis attention. Seydina Muhammad sallallahu alayhi dafa amoon xar xarit chrétien. Uh-huh. may nañu ko jabar chrétien ca Égypte. Hmm. Mariyatu ibni Qibti. wa ukhtuha la Égypte la bàyyi ko fii Afrique. kan moo ko ko may ab labbe. ndeysaan. noonu bi tudd. lan moo rapport moog labbe bi. xam nga bi yonent bi war a dem umra ji màkka xam da ngeen ko umra boobu mu ne Seydina Ousmane demal Ousmane dem na nangu nañ ko mais dem bi ci biir yéeféer na est que wóor na yonent bi est-ce que dal suñu kaw loolu yàgg na Sëriñ Tuubaa da nga xam ne arme nga yor Alaaji Maalik arme nga yor mm. Ousmane bi bi ñu nekkoon ñëwal yonent bi ñëw ba Xudaybiya mooy tey tey poste douane na tey ndax man nag war naa bëri foofu yonent bi dañ war naa fa màkk daf ko ne ko ñoo la waxoon ñëwal waaye bu ñëwati mu ne ko nag naa bind homme d'état yi ci monde bi gis nga Occident yi nga wax ni kenn du Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo toog bindulu ndax moom daawul bind yonent bi moo la gën a neex bët mais boo ko joxoon écriture bi du ko gis lu tax ummi yi la ndax mën na ci gis loo xam ne war na ko ci neex ko ci mbaa mbaa war na ko adapté te bu ko adapté musiba ci am ndax lu mu wax lépp lay ak ñooy accordé hmm. yonent bi moo ñu gën a dëgër loxo boo ko joxoon big du bind ndax lan su bindoon tey jii bu ëllëgee ñëpp bind ñi ñi ñi falsifié ne yonte bi la te jullit ñi dañ koy gëm. dëgg la yàlla na kon ummi yi la. Mm-hmm. gis nga bi nga xam ne problème am na ñu ne ko dootoo dem màkka pour résumer mu ne kon nag jot na ma bind ambassadeurs yi ci àdduna bi wala homme d'état yi ci àdduna bi bind benn lettre jox ko neuf la mu benn benn lettre jox ko Malikul Malikul Kisra Abravis ca Perse mooy Iran tey. waaw moo tax iranien il faut faire hmm. bu doon benn émission daal ci leer ñan ñoo Iran iranien yi tey Rasulullah moo leen sam sallallahu alayhi wa ba bii mu jël ko jox ko Afrique. Iran iranien yooyu nga xamante ne xasuma yàlla. Mhm. ñu ngi ànd ak Russie. Mhm. mu dëgër lool. Mhm. ba ca Corée du Nord. la ak yàgg. yàgg li trop mu jëleen benn lettre jox ko Afrique. africain ñun africain yi mooy kii ñu jox lettre ba ba yonent bi am ci soxna mu tudd muy kii. Euh, mu xaw xiis ci xibti mooy les coptes yooyu copte ngeen ko waaw xibti ay labbe fa nekkoon doon diriger état doon diriger religion mm-hmm. mm-hmm. yéen bind l'état di leen wax nañu nañu artu ci li xew li waa màkkay def bi mm-hmm. maanaam gouvernement bi li muy def nañ ci wax ndax respecté ñu àq ak yelleef bii mi ngi ko jox ku ñaan Abdullahi ibnu Xusaafa Sahami mu dem Perse bii mi ngi ko jox xaati ibnu Abi Baltata mu jëm Égypte Égypte bii nag ca lañ ko may soxna soxna bi ñu ko may nag. Mhm. yonent bi ñëw ne au lieu mu nekk sama bon dama koy takk mu nekk sama soxna. ak a xamoon teraanga te suturaal jigéen kenn du moom. dëgg la moo tax nga baal ma euh, euh, kii Salma. Mhm. yow yaay rakku yaay rakku Asma. Mhm. yow yaay rakku soxna Aïssa. ndeysaan bu Aboubacar Sadiq. ndeysaan moom moo daan fekk Rasulullah ci xunt bi di ko indi lekk. dëgg la dama ne la. tout à fait. Euh, sa sallallahu alayhi wa sallam nañu def attention. ci Sénégal yi wax ci diine. xam nga histoire. ak jàng hadis ak firi alquran ak mën duñu benn. Mm. histoire mooy bato. tout à hadis mooy gaal yu ndaw loo ci yi. Mm. boo ko tëmal ci bato du feeñ. Mm-hmm. qaala allahu qaala rasula hadis la mooy nettali. Mm. ak lay xewoon du am. xam nga kan mooy premier journaliste ci àdduna bi yàlla. ndax moo njëkk a communiqué. topp ci yéen topp ci. <laughs> kon métier noble ngeen yore. la communication. Salman Faris bi nuy ngay dégg journaliste la boo xam dafa ñëwoon doon def recherche doon def documentaire. Mm. ñëw Médine tombé coow am xew-xew am mu indi solution en tant que personne. Mm. justement soxna Faar. oustaz oustaz dañu dañu seetlu euh, yu bari nuy waxtaan yi ci diine lépp luy am ci àdduna rek diine tënk na ko mais lan moo des kon ñu mën ko moo xam ci yar moo xam ci comportement moo xam ci jikko moo xam ci lépp lan moo des ngir ñun. mooy xam julli nga moo xam catholique moo xam loo mun ci doon ndax ku ci ne sa diine am na lu mu def lan moo des ngir ñu mën ko appliquer. waaw da wax lu am solo ndax yéen dafa waxoon ne at tarbiyatu wa adab sharia Sénégal suñ cat mooy ñi way ci islam ñoo ëpp ñi jàng di jàngale. dégg nga wax ba mhm. dañ jàpp yonent Yàlla Muhammad ku baax la ku yiw la ku mën a solu la dundam juddu ju dundam bi maanaam juddam dundam feebaram ba ni mu décédé dafa souffrir moo la waxoon tey moo la waxoon feebar yonent bi yow ñun ñëpp ngeen daanu génn jooy dafa souffrir ba ni mu décédé léegi na premier mooy que nag communication bi la ñu changé ba moo tax ñun mu ñu nekk un vrai musulman ba xam ne yonent bi dafa jàngale administration administration bi nga ma ne administration bi nga ma ne télé état moom la adduna bi di di di doxal moom la Rasulullah bindoon bàyyi ko fi xam nga kañ la ko def discours yow ma arafa. xam nga ñuy ngi tabaski. ah mhm. taxawaay arafa xam nga lan na mhm. congrès la woon ah. lii xew daw yëpp ci congrès la rasul lay defoon discours bu pertinent ci santé ci feebar bi feebar bi sax feebar bi daloon na yonent bi wax leen ko nag feebar mbas mi mm. daloon na jamono yonent bi de mm. mi ngi tuddoon mi ngi tuddoon fay ruus mm. te tubaab bi nag yeewu nañu gis nga feebar bu am ci adduna bi dañuy xool archive yan jamono la woon ñu mu tombé loon ñu ko tuddee woon buñ ci xoolee ñu xool ci benn tur méngoo koog seen tuuru bopp indi ko bi mu nekk ci yaman rasulullah xam nga fayrus la bu adduna bi ni ko tudd du virus virus. virus Ebola amoon na. Mhm. du mooy balaa. Mhm. ci jamono Omar rasulullah génn adduna ku daloon ci jamono yonent bi kan la woon Bilal mii noddu ak amir benn sàmmkat feebar bi ci ay mala la njëkk a tàmbali ko doomu aadama mu ngi tuddoon muutaan. Mhm. muutaan la tuddoon. léegi nag bi liy amee Seydina Mohamed waxane kon. am amsiku lisaanikum bi maanaa téye leen seen làmmiñ ci li xew waaye nag wal yashaa fi baytika te ngeen toog seen kër mais loolu du affaire régime Macky Sall keneen kon asma lu am ci àdduna bi hmm. islam amoon na ko hmm. mais maanaa mooy communication bi moo jàllut ndax lan gëstukat ñu manqueti ci wàllu islam hmm. loo tax ñun moo tax ñun politiciens ñun yoon leen dàq politique milliards yoon waaye bokkuñu jikko ndax lan jomm naa fen jomm naa lekk alalu arab jomm naa di topp nit di ko jëw tey ko ànd ak nit nga di ko nga di ko nga di ko gërëm bis boo ngeen tàggatoo nga di ko xalab hmm. te loolu du ngor te Sénégal moo li seen jikko ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam neew na kon ni ngeen baax Rasulullah amoon na xariti chrétien Mariatu neel benn biñ ko dàqee mu dem mu dem Taayif ca nijaay bi Abdul Yàlla Ali Habib Mas'ud ñetti nijaay yi la amoon bañ koy dàq di ko dóor ay xeer ab chrétien moo ko soobee ci teen ci ci dex gi. la ànd ak moom ñoo kon di maanaam. Eh, l'islam Sénégal li ko manqué mooy. Hmm. Euh, jàngaat bi moo des lanaat moo des mooy communication bi dafa manqué bi xam ne yonent bi homme d'État la woon mais homme chef religieux la woon mais politicien la woon. justement sox euh, euh, Louisa Jandy une contribution ndaxte <laughs> li le dialogue islamo-chrétien feeñ na fi bu baax a baax ni que magi démb bi ak yonent yi ñoom yàllaa leen ñoroon te benn lañu te kenn kennam yàlla gi moom ñoom ñëpp ko bokk nangu koy gërëm bu baax euh, parce que ci biir ay waxam euh, dolli nañu euh, gëm-gëm. Mhm. yeesalaat suñu suñu gëm-gëm ci suñu diine. Mhm. te man mi di wax rek seede la parce que sama yaay ngi tudd Mariama. Mhm. muy musulmane. et pourtant je suis chrétienne. donc muy muy benn parce que ñun sax daf ñuy ñaax bu baax ci suñu ci suñu religion. donte bokkuñu ko benn la doo dugg ci kër ba santiir ne. fii ñii lii lañ ñii lañ. waaw donc donc moo ngi noonu te ku yor. li li seen tabaski dana neex. ñu feet yëpp lañu feete. <laughs> waaw waaw les familles <laughs> ku def ñu def. te baax yaatu. <laughs> macha allah jiitu ñu ci métier bi wan ñu mm-hmm. yoon bi tey it mm-hmm. soxorul iñaanu. macha allah justement moo tax mel ni mu mel nii. mu ngi noonu suba tey may wax ne rek diine wéeruwaay bu mag la. Mm-hmm. lépp loo xamante ne doomu aadama suñu borom da koo dénk parce que dañ koo dénk rek. képp koo xamante ne toog nga fii wala yor nga pouvoir wala yor nga ay leng dañ la koo dénk. te euh, di nga rendre compte baax na comme par exemple. exemple euh, rediffusion bi muy wax ñun bu ñu defee émission pare xool sa bopp noon la bu ngoonee wala boo xëyee boo bu journée bi jeexee wala bu weer bi jeexee nga xool xoolaat sa bopp. yan mm-hmm. nga yan acte nga posé ci yu baax yu méngoo kii fois parce que fois dafa am solo mooy tax euh, doo doon naafeq. Mm-hmm. doo wax lu dul dëgg. te di nga di nga di nga vraiment di nga jiital intérêt yi nga xamante ne. Mm-hmm. ñoom nga jiite donc fois am na solo bu baax a baax nit ñi euh, xoolaat seen wéeruwaay xool ne àdduna du kër comme ni ko papa Euh, oustaz sax nag ñu tëj ma tëj fee da am loo bëgg a dama ko bëggoon laaj dara rek ne euh, bu dee euh, réew mhm. ab ki ko yor mhm. mooy xam président ba walla buur ba bu ñu koy laaj ak di ko atte dañ koy atte waale ci jiineem kullu nafsin bi ma kazabat rahinun lu waay def hmm. yaa nekk dama lay audité waat dama di sekk doomu adama téléphone lu ci nekk du mémoire hmm. mais mémoire bi mu ne ci nit nit jiitu na mu ñëw ci tubaab bi tey loo ma sa wax ñu ngi ko enregistré mooy audio mooy son yàlla neen subhaana bu ñu bu ñu gasee nit bu suul ko am na malaaka moo xam ne loola ko yitteel li ko yitteel mooy mémoire bi avion bu daan lu ñu xool carte mémoire boîte boîte lan boîte noire mais boîte lu tax lan image son yooyu la yàlla ko jiitu ci xol mi ñu ci xol moo tax ne bu ñu ko suul rek am na ko ñu dem dañu bëqat génn ko dem yoonam ak kii laaj ñu benn kon Papa war nañoo ragal yàlla ñi nga xamante ni dañoo yor euh, lii di lengee réew yi euh, di dund dund buur ci loolu. tey ji nii. Mhm. yow ak président Macky Sall ngeen wéet rek ci bërëb. Mhm. ak li ñu fi dund yépp mhm. moo xam lu mu def ci lu baax ak lu ñu yaakaar ne def ci juum. yow boo jàkkaarloo nag moom tey te président toog di la seetaan nii bu la seetaanul fii mu ngi lay seetaan fële mu nekk ca Mali lan nga koy wax. ci Sénégal fi mu toll. waa président Macky Sall defe naa ñoo àndoon. maa ko njëkk a may euh, euh, dédicace boobu mi ngi nekk ministre de l'intérieur président national président assemblée nationale Abdoulaye Wade Baye Talla Diop Pikine gaañu na ñu dem di ko jàlle ji moo ne boobu mi ngi nekk premier ma ànd ak moom bi ma ñëwee président Macky Sall seede laa ko jox seede ne ko am déglul wax naa ci administration jamono Seydina Mohamed. nan lay war a doxee nan lay doxe léegi nag ñun ñun ñu wax ci diine du ñu mën a jubóog ñoom ndax am na lu ñu yomb te ñoom am na ñoo xam jombuñu ko. monsieur le président de la République euh, ñu la bëggoon ba dem ci école woote la ba ñëpp tàccu dimanche boobu dañ demaat ci école ba woote la ñu la toppandoon tàccu di ñuy jooy. ndeysaan bàyyil xel bis boobu. ana sunu wajur man sama papa ma nga Touba ma suul. ana suma yaay ma nga Touba mu suul samay doom Touba muy suul wala Pikine mu suul yàgg yàgg dañ may suul. Hmm. ki nga xam ne président wajuram bu góor bu jigéen ak i maama ñu ngi suul te ba tey kenn gardé wu leen bis bis yàgg yàgg tëli day am feebar day am. ñu fa la de am mën a de am ñu fa la am te ne nafsin loo defoon nag bu defee ne déedéet procureur juge mën na ko taf taf tafe yàlla du ko taf tafe. Hmm. yàlla na yàlla lu rafet. rasulullah danaan sax man ragaleen bisu pénc qalilan yukfiku xayrin min kasiran yurdika sallallahu alayhi wa sallam sàkku leen lu tuuti te dagan mu jig leen boo ci joxe dépense loo ci lekk rek la mun a xayrun moo gën nga dajal lu bëri ci bâtiment suufu jàmbur détour jàmbur toroxal nit mun a wa wa wa yaxlik ka mu la wax yàlla ba mu ko yàlla wax namurus ak rasulullah ak sunuy maam yépp a jem yàlla demanagul ku mu wax ba mu ne xaala la ca pare monsieur le président dara jaru fi ñaw bi ñuy tànn sénégal yépp gënoo leen mais dafa laa tànn yaa ma gënal ay waay waay bas bés boobu ku tomm ku moytul cogg loxoom lu ñu doon xam ne tekkuñu dara mu président kii sa noon la anama tey leen les marabouts hmm. kenn toppatu sa doom toppatul jarbaat ay jaamur yoo xam ne teg ay dila teg ay dil te nag kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati te tur amu fa kon ma koy ñaan en tant que frère en tant que koo xam ne suñu gidd la nag suñu président la waaye nag du tee nag di la vérité mm. alxaq yula wala yula alayhi bi ci gën a a ko bokk ma ci ñun ñi mooy yent bi waxoon saketal xaqi an cheytaan wa ahras képp gis ku gis dëgg ragal ko wax yent bi na seytaan bu muuma nga saketal xaq cheytaan wa ahras te yàlla ci almusal moo tax ku julli ku julli mm-hmm. allahu akbar yomb na de mais est-ce que musulman nga mm. ci li ngay lekk ci li ngay comporté mm. ni ngay àndal ak li ngay yéene adduna bi yàqu ndax lan liggéey yu bon ay soxor mm-hmm. jërëjëf jërëjëf papa <laughs> kenn dugg àjjana te gëmu yàlla. dëgg la waay te gëm yàlla du mën a nekk te bëggantu. tout à président dégg na ko bu baax a baax mu nekkoon la chronique du vendredi ñu amoon contenté dalal la ci suñu biir. mu amoon solo yi lay fàttali. gërëm naa la dafay baax. waaye comme dama am ay xarit. waaw ah. Cheikh Omar Diop benn. Uh-huh. El euh, Hadj Daouda Niang bi Abdoulaye Diop Ablaye Diop Ablaye Ablaye Diène euh, Ousseynou Ndom Mouhamed Cissé bi yor MSP Sémou yooyu wax dëgg yàlla di ñaan yëpp jàmm. Adja Kine Sow Abdoulaye Diop maire Bara Gueye ak Ndiaga Niang di ñaanal yàlla mhm. di ñaanal Bougane Bougane xam lu ma ko tuddee mm. bi gën waaw mooy bi gën de président nañ koy woo léegi ci kër gi bi gën nag wax dëgg yàlla bi gën daaw lu am solo xam nga sama géer la waaw damay teral waaye gëj naa koo gis <laughs> maa ngi laaj Alima Ndione ndax gëj na koo gis dama jox numéro ma woo ko ah. ndax gëj nañoo tegoo loxo gëj nañu yaag président xanaa oh, ah président maa président waaw président est-ce que du suñu géer ñun ñëpp tamit ah, déedéet ma yàqaat ah ab sang la de ab sang la de ah ab sang la de ah, ah? moo ñuy teral jamono ci moo ñuy suturaal kon. <laughs> yàlla jaralaate waaye bi gën bi gën bi gën moo taxit nag ah Luisa. bi gën laa d'accord nga ci bi gën. laa chronique du vendredi moom damay laaj ci xalaat euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy seetaan waaye nag bu ñu jógee nag ci la chronique euh, du vendredi Papa Assane Seck dañuy dem rek euh, dalal ki nga xamante moom di tonton Libaas moom tamit dafay daal di ñëw bu ñëwee ba nuyoo ba pare dañuy xool ndax dañuy dem esthétique parce que nag jamono ji tamit tabaski arrive. bu ñu fàttali koy kàddub yàlla ak naqarlu li nga xamante ni moom moo nekk ci réew mi ñuy évolué wu dañuy daal ji euh, waxtaane tamit li nga xamante ni moom moom moo mun a féexal xolu euh, jongoma yi ci biir kër yi kon nag tout de suite on reçoit tonton Libas